إله إلا لا لا إله إلا لا إله إلا لا لا إله إلا لا My father إله إلا لا إله إلا لا لا إله إلا لا إله طيفان لا إله إلا لا إله باي فاي رب المريدين لا إله إلا الله لا إله إلا الله باي باي لا إله إلا لا إله أبو مهدي لا لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا لا إله لا إله إلا الله إلا إلا ابو فاضل باب المريدين لا اله الا الله لا اله الا الله يا ون بابا شرفا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

di xalifa général di Baye Fall woote woon lii nga xam ni daa fekkoon ay kilifaam daan ko def di ko woote fii mu toog ba yàlla soppi seen liggéey ñu dem te jii mu mag ci kër Cheikh Ibra Fall dellu siwaat nag di yeesalaat le kilifaam yi daan def fii ci kees gàmmu ci ndigalul Cheikh Ibra Fall la woon ba ci Cheikh Modou Moustapha Fall ba ci Serigne Cheikh jëmb ñoo ngi ñaan sunu borom mu yokk fanam wi ca dolli wéram gi waaye ak mboolem rakkam yi waaye ak mboolem njabootu kër seex Ibrahima Fall gépp mu jox kàddoom nag jëwriñam Serigne Cheikh Fall moom Serigne Modou Moustapha Fall ñu gën koo xam ci Serigne Cheikh Ndiaye Mbeng sëriñ Cheikh Ndiaye Mbeng jël kàddoom. jox rakkam di taalibeem Serigne Saliou Fall moom sëñ Modou Moustapha Fall mu wax nag ci turu Serigne Cheikh Ndiaye Mbeng waaye wax nag ci turu rakkam yëpp waaye wax ci turu taalibe yëpp wax ci turu kër Cheikh Ibra Fall sëñ Saliou sëñ Cheikh nee la nga daan wax ak nang ko daan waxe waxaar ko ñëpp dégg ko ñu maase déglu Serigne Saliou sëriñ bi nee na asalaamualeykum. wa wa barakaatuhu sëriñ bi ñoo ngi lay nuyu. sëriñ bi sëriñ Saliou nee ñoo ngi lay nuyu. ci ndigalul sëriñ Cheikh Ndiaye. ci ndigalul sëriñ seex Ndiaye. mii di sunu kilifa. mii di sunu kilifa. di sunu sëriñ. di sunu sëriñ. ñu jokk ci moom. ñu jokk ci moom. ñoo ngi lay nuyu. nee ñoo ngi lay nuyu. ciw turam. ciw turam. nee na mi ngi lay nuyu nag. nee mi ngi lay nuyu nag. moog rakkam yi mu àndal. moog rakkam yi mu àndal. bokk ak ñoom kër Cheikh Modou Moustapha. te bokk ak ñoom kër Cheikh Modou Moustapha. ak doom yi. ak doom yi. ak yi. ak taalibe maanaam kër Cheikh Modou Moustapha gépp. maanaam kër Cheikh Modou Moustapha gépp. ñu ngi lay nuyu kon. ñu ngi lay nuyu kon. waaye nag ci turu Serigne Cheikh. waaye nag ci turu kon Serigne Cheikh. di la sant. di la sant. di la ñaanalit. di la ñaanalit. toogaay bi yàgg. toogaay bi saa borom gën koo yàggal. ma ànd ak wér. ndax toogaay bii ndax toogaay bii kat. xam nanu ko. nee na xam nanu ko. mbaa boog. mbaa boog. am nañu ko ci xam. am nañu ko ci xam. ci diggante ñaari waajur ya. ca diggante ñaari waajur ya. di Serigne Mohamadou Mbenda. di Serigne Mohamadou Mbenda. ak Serigne Modou Moustapha. ak Serigne moodu Moustapha. ñu àndoon. ñu àndoon. andiin wu rafet. andiin wu rafet. man mii neena nee moom mii day. li doon doon gone. li muy doon doon gune. fekke naa. fekke naa. ñu ànd ci Touba Fall. ñu ànd ci Touba Fall. jëm ca belel tool ya. jëm ca belel ca tool ya. sëñ Moudou Fall Mbenda. sëñ Moudou Fall Mbenda. toog ci wetu càmmoñ gi. toog ci wetu càmmoñ gi. sëñ Modou Moustapha toog ci wetu ndijoor gi. sëñ Modou Moustapha toog ci wetu ndijoor gi. booba gone gu tuuti la nee na booba gune gu tuuti la. fàttiwuma ci dara. waaye fàttiwu ci dara. ba jëlee sëñ Modou Mbenda soloon yére ya. bala jëlee sëñ Modou Mbenda soloon yére ya. lépp xàmmi naa ko ba fi mu ne. nee lépp xàmmee na ko ba fii mu toog. nee mën na koo wax. waaye loolu lépp day gudd. waaye loolu lépp day gudd. booba sëñ Modou moo yor oto bi di ko. booba sëñ Modou Mbenda moo yor oto bi di ko dawal. kon ñooñu seenug ànd. kon nee na ñooñu seenuk ànd. yàgg na. yàgg na. moo jur lii. moo jur lii. ba tey jii. ba tey jii. ki fi nekkal sëñ Modou Mbenda. ki fi nekkal sëñ Modou Mbenda. nekkal fi Cheikh Ibra. nekkal fi Cheikh Ibra. toog nii. ki fi nekkal sëriñ Modou Moustapha. ki fi nekkal sëriñ Modou Moustapha. ak waa kër gi ñëpp. ak waa kër gi ñëpp. rakk yeeg doom yeeg. rakk yeeg doom yeeg taalibe yi. ñoom ñuy boof fi kanam. ñoom ñëpp ñu àndandoo ñëw boof fi sa kanam. Serigne Cheikh nag. Serigne Cheikh nag. dafa wax ni. dafa wax ni. la mu waxoon démb rek. la mu waxoon démb rek. moom lay feddali. moom lay feddali. moom daal joxe na boppam. moom daal joxe na boppam. adduna ak àllaaxira. adduna ak ak njaboot gépp nag. ak njaboot gépp nag. di bootu ci sëñ Modou Moustapha. di boot ci sëñ Modou Moustapha. di déglu sa ndigal. di déglu ci sa ndigal. di ko jëfee. di ko jëfee. la dul loo la dul noona. te la dul noona. yàlla boo boonu ca seen. yàlla boonu ca seen. moom lay digal boppam. nee moom lay digal boppam. moom lay digal njaboot gi moom lay digal it njaboot gi. ku ko ci déggal. ku ko ci déggal. loolu la nekk nee ci loolu la sëñ bi Cheikh Ndiaye ngi nekk. kon sëriñ bi. kon sëriñ bi. sëriñ bi nee na moom. sëriñ bi nee na moom. dellu si na rek. dellu si na rek. di boppam. di joxewaat boppam. ànd ak kër gépp. ànd ak kër gépp. di ñaanit di ñaanit it nga may ko fanu gudd nga ñaanal ko fanu gudd moom njabootam ji moom njabootam ji ba ñu mën laa liggéeyal ban man laa liggéeyal loolu daal nee na lool daal ci kàddu yi mu waxoon ni ci kàddu yi mu waxoon ni danañ la ko wax dinañ la ko wax loolu ci la nee na loolu ci la bokk ginnaaw bu loolu wéyee nee ginnaaw bu loolu wéyee njabootuk sëriñ Moodu Aminta gii njabootuk sëriñ Moodu Aminta gii dañoo baaxoo woon dañoo baaxoo woon waxtu wu ñu gàmmoo ba ca suba waxtu wu gàmmoo ba ci suba waxtu wii ci waxtu wii daanañ indi seen addiya daanañ indi seen addiya di ko jofal si di ko jofal si sëriñ bi ci sëriñ bi ñaari at yi ñaari at yi nag. man la fi sëriñ bi yebal. moom mii la fi sëriñ mi daan yebal. moo ko fi daan teewal. moo ko fi daan teewal. di nangu li ñu daan joxe. di nangu li ñu daan joxe. ko sëriñ bi su demee jébalaat ko sëriñ bi. loolu am na ñu mu wér. nee loolu am na ñu mu wér. ba ci benn ci mëgëy mee. ba ci benn ci mëgëy mee. ak Omar Dumbuya mee nga xam ni. ñoo fi daan bokk di nekk. loolu mi ni. loolu mi ngi lay xamal ni. ñoom seen jëfi baay ja. ñoom seen jëfi baay ja. ñu ngi koy wéyal rek. ñu ngi koy wéyal rek. waxtu wu ne. waxtu la la sëriñ bi bëgg a yëgal. loolu la la sëriñ bi bëgg a yëgal. nga ñaanal leen. ñoom it faal nga ñaanal leen. seen doxinu waajur wa. ndax seen doxinu waajur wa. soppiwuñ ci dara. xanaa dolli ko rek. waaye soppiwuñ ci dara. kon sëriñ bi. nee ñi ngi ñaan di déglu sa ndigal sa ndigal loo ko digal rek loo ko digal rek mu jëfe ko mu jëfe ko démb ñoo fi àndoon ñëw nee na démb ñoo fi àndoon ñëw mu siyaar si mu siyaar si xam naa tàngooru démb bi sax xam naa tàngooru démb bi sax moo tax mu yéex a ñëw moo tax mu yéex a ñëw la may rek ndax doon la may rek kër gi seddee kër gi seddee mu mën a yegg si fi yow moo ko tax a guddee loolu sax moo ko tax a guddee moo te mu teel a ñëw ci yow moo tee mu teel a ñëw ci yow nee mi ngi déglu nag sa ndigal tey tàggoo rek tey tàggoo rek soo ko yëwee mu delluwaat toog déglu fa ndigal moom njaboot gi yëpp nee lool rek mooy jotaay Serigne Cheikh Ndiaye Mbeng bi nee leneen li ci des nag sañu ñu ñu cee wax dara ndax ki nu yilif ki yilif ki nu yilif moo war a wax moo war a wax. su waxee nag su waxee nag. ñu déggandoo ko ñu déggandoo ko. salaamualeykum wasalaamualeykum. wa rahmatullahi wa barakaatuhu. jërë ngeen jëf. sëñ bi nee na asalaamualeykum. wa wa barakaatuhu. nee ñu ngi nuyu jëwriñu Cheikh Ibrahima Fall ji toog. nee loolu la yoon wi baaxoo. ci turu jëwriñam ji nga xam ni nee na doomam la dib taalibe di jëwriñ nag nee na ñu tàmbalee kàddu yi nag ci rafetlu kàddu yii Serigne Saliou doon wax nee sama nijaay di Serigne Saliou Fall moom sëñ Modou Moustapha ñu gën koo xam ci Serigne Saliou Fat Saw nee li mu wax leer na nañ nee ci ñun nee moo tegginal wax ji wax ni xëy na lii may wax am nañu ko xam tàmbalee ci sëñ Maguette Niang waaye loolu faal moom ñépp a ko xam rawatina nag ñun ñi nga daan waxal kon nee li nga bëgg a leeral rek mooy. baatum ndigal bi nga xam ni moom la sëriñ lu jiite. nam ko daan defe rek. la ñaan suñu borom. la ñaan suñu borom. defe ko nu ko fawxa. te rafet na njortu ci lim ñaan. nee waaye loolu sama nijaay wax ci bis bi nu ko daan jébbale. muy bisub tey jii. ñaar ci di fukki fan ñaar ci gàmmu. liggéeyub addiya yi moom. nee na xam na li may bëgg a wax. mbay mi ciy boole. mbay mi ciy boole. di ko gàttandoo baykat yi. di loolu li ñuy léebu ni ku jiite ay lafañ. da daagu. ndax ñu mën a ànd ak yow. nee liggéeyub addiya yi moom. da daan noppi nege ni ñu di ko jébbale nege ni ndax joxe nañ ko ci fukki fan ak ñeent ci weeru kor yi ci diggante fii ak Ama Salsasin doon 1977 booba sunu maam Assane moo fi ne nee téye addi sëñ Modou Aminta yin fi fekk yëpp tàmbalee nañ ci weeru kor yi nag. ba dikk ci ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru baraxlu. nga xam ne liñ doon seet ci jébbale ji. kon day mel ni. kon day mel ni. Ah, at mu manqué wenn weer. at mu manqué wenn weer. jébbali nañ ci at yii. jébbali nañ ci at nee loolu waaye la tax jëwriñ ji daan ko def. daana def ni at yii day daje rek. su adi dajé mu joxé ko néna bokku ya. na ci ci li muy teel a joxe addiya waral waxal nako bopam moy genn gi mu daan génn mooy gi su démé ba ñew adi ji nga xamni mo moo ci bitim réew mo di ca bitim réew ñoo ko daan dajale jox ko ko. nee na bu dikkee rek. moom bu dikkee day mel ni aw mat ci moom. nga xam ne bu dee bu deñul borom du am jàmm. nee loolu la daan mel fi moom. waaye la ko jiitu nag. la tàmbalee ci jamono Sëñ Ablaay ba ci maam Abdou Sakkoor. nee na yi. nee nii la ko daan defee. mooy topp weer su liggéey bépp dajee rek. mu jébbule ko. waaye nag bi mu doonee Seex Ibra Faal. li tàmbalee 1985. ba bi suñu borom soppee liggéeyam bi. day def moom lu ñëw fi moom. mu joxe ko. leneen lu ñëwati topp ca. nee lii dina doon ab dundu. lii doon am koddu. lii doon ak jur. ba ci fas ak sareet yi lépp yóbbu nañ ko ci kër sëñ Touba. bi mu doon ne jëw diñu Seex Ibra ji. nga xam ne boobu moo yilif kër yëpp. waaye joxe gi waaye joxe gi nag. takk ko ci wenn weer. daaw ko def. xanaa jëwriñ jiite sëriñ Fallilou moom itam ginnaaw lim jiite. ginnaaw bu génnee. ginnaaw bu génnee. la ñuy teg ci loxoom. la ñuy teg ci loxoom. ci jëwriñu Cheikh Rafaal ji fi nekk la jëm. ndax mooy jëwriñam. mooy waral. ne bu jógee ci tukki ba rek. ñaare. ne dañ ko def ci màggal ga nag. duñ ko jébbale ci màggal gi. waaye li ëpp. ci wéru diggu kira lay ñibbisi. né dama na fi benn yoon. digënté tabaski ak màggal. waaye yaakaar naa ñaareelu ko. né na bu ñëwé nak digënté tabaski gi. ak magal gi. day melni lu xaw xat. ci mom wala bok muy am yërmande digëm ak wala muy am buy siyaare ji. nee na ñi may waxal ñoo ma gën a xam li may wax. rawatina nag sunu waajur yii. day yóbbu addi yi màggal gi. day yi màggal gi. suñuy waajal gàmmu gi nag. mu waxaale ko ci rajo bi. ni kuy ñëw ci gàmmu gi. te indaale woo woon sa addi ci màggal gi. na ko indi kees. fa la am ndigalul gàmm fa. loolu moo waral. loolu moo waral. at yii. at yii. at yii at lu fi daje. lu sëñ bi di ko joxe. sëñ bi di ko joxe. Ah, di nekk leneen lu ñëw. di nekk leneen lu ñëw. na jëwriñ ja xam ne sax. nam daan def rek moo fi ne. daan def la daan daje. la daan daje. dajale nan ko. dajale nan ko. waaye nag muy am yéene nag. dongay tërbiye yi. dongay tërbiye yi. seen liggéeyu bopp bi. seen liggéeyu bopp mbay la moo xam ne kenn du ko nat asaka. mbay la moo xam des koy fab jox seen borom. noonu la leen ko sëriñ bi defal. baykat yenn itam. bu fekkee newuñu ci daara ji itam. ñoo tërbiye yi ñoo bokk benn atte. benn nawet bi. benn nawet bi. mooy noppeendoo. mooy noppeendoo. li ci ëpp. sëñ bi bëggoon nag. ginnaaw dafa jiite ay lafañ. mu daagu ndax ñu man koo topp. mu bëgg li fi daje. mu téye ko mu téye ko. ba liggéey bee noppi. ba liggéey bee noppi. mu boole ko mu bi nag. mu boole ko liggéey bi nag. jébbal ko borom. ko borom. muy jëwriñam ji. muy Serigne Cheikh Fall moom sëñ Modou Moustapha muy Serigne Cheikh Ndiaye Mbeng moom itam jëwriñam mi ngi nii toog di jëwriñu Cheikh Ibra Fall ji waaye nee na damay gàttandu murid yi nag ci li tax Serigne bay jóg sëñ Falilu mii ak loolu sama nijaay sëñ Saliou wax tamit wax ju leer naññ waaye ñu gën leen koo leeral nag wan leen ni leen. wan leen ni leen. la sëñ Fallu nekkoon démb kat. ci la nekk tey. daa bëgg rek. daa bëgg rek. liggéey bi. liggéey la ci ëpp. la ci ëpp. sotteendoo. sotteendoo. ñu baree bari. nda moom ñu baree bari. indi nañ seen addiya. nan ko daan defee. waaye fekk na kàddoom jiitu nag moom. ndax waxee nañ ko noonu. ci woote kaay yëpp. yi ëpp. ni leen. sëñ bi daa bëggoon. bu liggéeyu addiya bi. xam ngeen addiya baykat moom. bu dee jógee ca mbay ma. bu dee jógee ca mbay ma. ci li ëpp addiya baykat la. la nekkoon rek la ne. waaye li wolof di léebu ba tey. xar daal moom dawul daawuti doole. xar daal moom doole. nee ñi may waxal ñoo ñu gën a xam loolu. xam nañ ni. ki indi addiya ji. bëgg mu gën a sakkan. ba gën a sedd xolu borom. ba gën a sedd xolu borom. mu ànd koog murid mu ànd koog murid yi. loolu moo waral li mel ni ak tekkandiku. loolu moo waral lii mel ni ak tekkandiku. nee moom du tekkandiku sax. dañuy dajale rek. bu dajee rek bu dajee. dina tege ci loxol borom. insa arab yi. waaye at yi gàmmu gi nag. moom mi ngi fi. lim ba sëriñ bi joxe. bind na ko. su ko tegee ci loxol ñam jee nu mu ko def lu ñu defale ko noonu nee loolu daal bokk na ci kàddu yi sama nijaay lu ci dëngit ñoo ngi koy tuub waaye bëgg mu jub moo tax ñuy wax nee na ñoo ngi nuyu nag suñu waajur yi ñu fekk tàmbalee ko ci jëwriñ ju mag gi li tax ñu waxe ko noonu mooy Serigne seex Fall moom Cheikh Modou Moustapha muy sëñ Cheikh Ndiaye Mbeng ku ne xam na ni mooy jëwriñu kii toog ne li ko féete suuf ay rakkam lan di ay taalibeem ndax ñëpp a ko jébbal seen bopp waaye li ñu téyel waaye li ñu téyel nun murid yi suñ ko dul wax ñu dégg ko ci seen i nopp fi nga xam ni ku fi wax kuko ko wax ko war nañ fe wax ñun ndax len ñu téyel ndax lawaron, ñu téyel ñun la waroon nee tol nga ni sa baay man ci sayir la man man ci la man lu di la ko def di ko defal waxtu ne war ak say ngërëm. ñu dégtal leen ko. ñu dégtal leen ko. ba dégg ko ñoom. kon ci turu Sëriñ Fallilu. yéen waajur yi nga xam ni. ñoom waajur yi nga xam ni. moom rek. moom rek. ak ñi bokkal. la ko sunu borom baaxee. mi nga joxe ay cantam. ak i ngërëmam. di ñaan sunu borom. mu gën a yàggal seenu dund. te wéral leen. àggal leen seen yéene ci ñu baax ñëpp. àggale leen seen yéene ci ñu baax ñëpp. waaye nag àggale yéene ñu baax ñi. ci yéen. loolu ay jaam lañu. loolu ay jaam lañu. ñu ngi koy ñaan. nee na waajur yi ñu koy ñaanal. ay jaam lañ ni ñun. ab jaam sañees na koo ñaanal. ab jaam sañ naa ñaan le. kon li sëriñ Falil di ñaan. mu jëm ci kilifa am yii. di ay waajuram. noo ngi ñaan borom yalla na ko ko nangul jërëjëf Fall ne lol ak tant la yu and ak ngërëm ne lan ci daan teg nag ku na xam na ni bu joge and ak rakam te di bo le ñu ci ñun murid yi ak jëmi bopam di lol rek la am indi nako nak fi jeewriñum ji fekk fi jëwriñam ji nag ne kon nak mi ngi ko xamal ni ba di nga xamni suñ ko xoolee. mbooloo moo xam ni. mbooloom lislaam la. te lislaam tax. yërmaande suñu borom dina bi ci ñoom. ne leen ko sëriñ bi xool. góor ak jigéen mag ak ndaw. ñu amee ci defaru tey jii. ak boo lëggee. lu sëñ Fall am daal. indi na ko. mooy jëmmam. ak njabootam gi. wuy si na ci woote bi. defe na ko ko bëggee. defe na ko nag ni ko bëggee. kon nag kàddu yi yooyu sama nijaay doon wax yooyu sama nijaay doon wax cant yi ak Sejauh yi cant yi ak ngërëm ni sa jëwriñ di sa bunt sa yoonu kër Seera Fall bi nee na tàbbi nga ci biir kàddu Serigne Saliou Far Sow waxaale ko ñëpp ne ne ak ay ak samay doom ndax lépp Cheikh Ibra la te nit boo ko yaakaaree léppam léppam sa kilifa la di jéggulu kàddu yi nag nee li muy wax ndax danoo wax ni ab taalibe su toogee ci ab sëriñam day mel ni néew bu ñuy sang waaye néew bu ñuy sang am na lu ko gën a nekk ab taalibe daa war a mel ni sërub càngaay daa war a mel ni sërub càngaay sërub càngaay su la neexee nga lal sangu su la neexee nga gemboo su la neexee nga tarax laayoo su la neexee nga kaalawoo bu la neexee nga lem geganoo bu la neexee nga lem bokk néew bu ñuy sang néew bu ñuy sang ñaara koy wëlbati ñaara koy wëlbati waaye sërub càngaay kenn koy wëlbati jërëjëf Fall nee na li ko indi fii nag ñi fi nekk ñëpp ay at a ngi nii gisu leen ko ci kër gi gisu leen ko feneen gisu leen ko ndogu gisu leen ko yóbbum addiya gisu leen ko yóbbum siyaare gis leen ko yóbbu tabaski nee liggéey bii biñ ko dooree ba léegi tànkam jëmu fi Serigne Saliou Fall mii am na at moom dafa wax ni day wax ba tudd ko. ni sëñ Cheikh. sunu rakk ju baax ji. sëñ Cheikh jëmm ni. nan ko jëli. sëñ Kamal Fall mais moo ñëw. ba mu ñëwee. da leen ni dem ma. wutu ma fi dara. ma ngay ñanga ngi nii. yàgg na ko wax ni ko. ba ma joxee sëñ bi sama bopp. laa yeew sama bopp. fu ma nekk. sëñ bi laa fa nekkal kon lu may dem mu di ma yiwi dem leen yéen xëy na yéen sëñ bii nag nee li ko booleeg moom la a biral ci mbooloo mi ñépp dégg ko nee baayam baayam moo doonoon sëriñam Cheikh Ibra Fall moo ko woo ba mu ñëw mu ni ko saaliwu ndax amagul nga sëriñ mu ni ko déedéet mu ni ko demal ci Modou Fall Mbenda nga jébbalu ci moom mooy sab sëriñ nee sëñ baa ngi ni toog dëgg la kay faal nee loolu moo ko bële sëriñ am di nee ma suba dem fenn nee lii ko boole di sëriñ Cheikh Ndiaye Mbengue mii nee bi ñu ko dem na ba ci moom mu ne ko maa nee jugal ma jug soo nee toogal ma toog soo nee yëkkatil ma yëkkati soo nee tëral ma tëral nee na ñëpp a nee na ma de sëñ ma su wax nee loolu la sëñ daan wax nee lu daan wax wutiwuma fa dara su may dem nee ñu may dem dun sama sëriñ nee yéen sama sëriñ yéen jigéen mënta am ñaari borom kër sëñ see jëmm mooy sama borom kër wax na la ko ma ngay ñang ba tàyyi nee ndogu yi ñaari yoon la ko mos a tiimee nee bi mu xamee ni sëñ Saalu jóge na fi mu dem jokk ci moom ndogu ya la tax mu tiim ko mooy sa Abdourahim moo ko woo ba mu ñëw mu ni ko seex kayitim ndogu yi nee boobu la fa gëj am na wala amul ndax masalmaa yóbbu addiya nee nga woo ko mun la dinaa ñëw nee loolu la daan wax nee na sëñ am na mii nag bu ko wooyi mu wuyu ko lu mu ko sant mu def lu ma am ci xalaat dina ko ko wax lu ma wax lool laay def nee na baayam ak baayam la woon loolu Cheikh Ibra ko defoon nee na moom nag sëñ Abdou Sakkoor mooy léppam sama baay sëñ Abdou Sakkoor la ko joxoon nee mu jox ma ñaar doomi sëñ Touba mu jox ko sëñ Abdou Mbàkke mu jóge fii mu jox ko sëñ Murtala mu jaarale ko foo xam ni jaarale fa ay doomam nee mi ngi ko ci sant nee na benn rakk la amoon baayam tuddee ko sëñ Fallou yëkkati ko jox ko sëñ Cheikh Modou Mbenda daa teel a wàcc nee sëñam di nee baayam Cheikh ko boole woon ak baayam nee sëñ am dee ngi nii toog daana wax ni li may fekk Modou Fall Mbenda nee du ma fuuti benn sëriñ mos a ci kenn sëñ bi sàkkoor la bokkaloon ñaari waajur mosu koo dékki loxo jërëjëf Fall nee sëñ bi sàkkoor ca jamono ya nga xam ni dañuy woote dañuy woote Baay Faal yi buñ màggalee ba suba sa dem di siyaare ji sëñ bi sàkkoor daa solo ba noppi woolu ko mu ni ndaw li boo demee nekk maa ngi ñëw mu dem ni ko soññ ko. mu dem ni ko soññ ko. mu soññ ko. mu ni ko. soo demee nga ko. ba mu joxee Modou Fall mbenn samay loxo. ba fii ma toog du ma jox kenn samay loxo. oh. Fall. sëñ Cheikh Ngounda. loxo yooyu waa waajur ba joxe rek moom la lay joxaat. yaay sëñ Modou Mbenda. mooy maam Saliou tey. ñaana ko ca ñaanal ñëpp nga bi nee na li ci des nee na état defalu ma dara Cheikh Ibrahima Fall la ko defal nee na wutul fii góor góornóor xaw ma fi préfet xaw ma fi kenn xaw ma fi nee na Macky sàll su ko bëggoon a gis-gis ko ana sëñ Fallilu Cheikh nee moom la toogal Touba alxames ñu téléphoné ko ni ko président nee na bu subaa nga ñëw jox la nga doon sàkku nga jox la kayit yi nga doon sàkku man leen ñëw ma man Cheikh Ibra man Cheikh Ibra Fall moo ma won ba ma demee ba xam ni daa war a jëf ci yoon yi daa dem ba oriental ma ñaan fa suuf ma ñaan fa suuf su kenn mëstu gor ma gor ko sancal fay nit ñuy liggéey di jaamu yàlla nee nekkul fii di xëccoo len talu ko nee mi ci tool yi ma ngay ñanga ngi ni daaw señ ci jëmb lay doog a gis kayit ya 400 hectare neena amna ko yo xamne ne goral bopam ak am ay kayitam nee loolu lañ doon wax jërëjëf sëriñ Cheikh rakkam yu baax yi nga xamne ñoo fi tok ci wetam sëriñ Cheikh Ndiaye mbeng ki nga xam ne mooy jëwriñam ak njabootu Cheikh Rafaal gi fi teew yëpp di nuyu Serigne Cheikh Fall Ngunda moom maam Saliou Fall mi nga xam ne moo doon yëkkati kàddu léegi ñu wax kàddu ñu rafet yi nga xam ne mu ne su ko woon ñàkk dégg di sant mbooleem njabootu maam Cheikh Rafaal gi fi teew sëriñ bi wax na ne mi ngi sant si lu jiitu di sant si fii nu toll te cant googu it xam nañu moom la ñuy sant si li nu jëm ndax bi yàlla ñëwee akub dogalam si magum ju baax bi sëriñ Cheikh Fall jëm yàlla suñu borom dolli ay leeram yokk yërmandeem njabootu Cheikh Fall gépp danoo maase topp si gannaawam kenn ku si ne mel ne da ngaa am pas bu yees kenn ku si ne am dogu bu yees si gannaawam wan ko loo xam ne mooy li yoon wi baaxoo rek mooy tànk kanam yi nga xam ne jëfi tey ju ne day gàcceel jëfi démb ñu xam ne Serigne Cheikh Fall jëmb demut fenn ndax sëriñ am Amdi Fall moo du mbendaa ngi nii toog ndax mooy moom mooy moom looloo doon sababu mu waxoon sa njal benn gëni mboolem ñi ñëwoon di yeesal si seen ndigal ak seen pas-pas kenn ku ne sa fa nga féete woon sëriñ bi wax ni moom day li fi sëriñ jëm jëmb bàyyi woon amut lenn lu mu ci soppi amut lu mu ci yokk amut lu mu ci wàññi lu dul ne nu xam ne rek yoon wi moom jëm kanam rek la baaxoo kenn ku ne loo jëfal sëriñ bi tey bu nu demee ba nga weesu ko jëf joojee war naa war nga ko wan gannaaw xam ni li si sa kanam dafa gën a dafa war a gën a dafa ëpp la nga xam ne moom nga jëfoon sëriñ bi mi ngi sant rakkam yëpp njabootu Cheikh Ibra Fall yëpp taxawaay bii nga xam ne taxawu nañ ko ci bis yii nga xam ne moom la ñu weesu bi nu àggee si màggal gi taxawaay boobu it la njabootam gépp am ku bokk si njabootu Cheikh Ibra Fall rek fekk nga ko fa mu nekk indil ko sa yéene indi sa addiye yeesal si sa pas ak sa ndigal mu nangool la ko bi nu weesoo màggal gi mu woote wootem bii bi bisub gàmm bii wax ni day dana ko def ni ko magam baax geesoo rek mu gis leen ci gannaaw mu gis leen ci wetam ndax li ko fi indi bàyyi ko fi di at jaamu yàlla mooy liggéeyal sëñ Tuubaa looloo ko fi bàyyi mu doon jëwriñu maam Cheikh Ibrahima Fall ngeen di dooleem ngeen di kàttanam soññee nag si li nga xam ne moom moo ne si sunu kanam li si jiitu di bis bi nga xam ne moom lañ dëgmal di bisu bi nga xam ne Serigne Bassirou Fall Alxuraan daana ko taxawee te waxtu ne waxtu yi mu daa ko soññee ren jii yàlla dogal sëriñ Bada Fall làq si sunuy bët ba ki démb rek waaye nag ñu am lañ ko daa jàpp mooy li ci jiitu mooy mbale mi nga xam ne bu masaa jàll dañ ko daa bale Touba mooy mbalem gannaaw gàmm gi Serigne Moustapha wax na ni bis bi ñu jàpp faal ba ñu si dimbalee ñu wax ko Serigne Moustapha waaw bis bi fukki fan ak juróom-ñeent waaw talaatay ëllëg ji bu dellusee mooy fukki fan ak juróom-ñeent talaatay tey jii bu dellusee waaw waaw. ju tey jii bu dellusee see. mooy mbale mi. waaw mooy mbale mi. mooy ñaareelu mbale mi nga xam ne. waaw mbalem ñaareel mi. mi nga xam ne dañ ko daa def gannaaw gàmm. bu màggalu bisu sëriñ ba Fall bi ma saa jàll. talaata ju tey jii bu dellu see incha allahu na murid yëpp daje Touba ñu ànd ak sëriñ bi taxawu liggéey boobu ba mel nam daa mel. li si des mooy liggéey bii nga xam ne. mooy liggéey bii woon si estaatu Mbacké bi te sëriñ bi daa ko taxawu sëriñ bi wax na ni liggéey boobu bu nu tolloo sa mbale ma ndigal li nga xam ne moo ci war a am sëriñ bi dana ko jottali ñi mu ko war a jottali muy sëriñ Cheikh Ndiaye nga jëwriñam moom it mu yaatal ko si ñi nga xam ne ñooy bokki taalibe yi nu xam kañ lañuy ñuy tàbbiwaat tàmbaliwaat liggéey boobee gannaaw ba nga xam ne sakku nañ ndigal ci sëriñ Mountakha ba ñu am ko. li toppit sëriñ bi nee na mi ngi sant mbooleem. ñi nga xam ne ànd na nag moom bis bi rawatina autorités yi nga xam ne ñoo fi teew si turu euh, président de la république ndax moom yabal si na fi ay ndaw yabal na fi ay ministre ñu ñëw fii si turam siyaare ci sëriñ bi lu jiitu bis bi keroog it biñ ne ëllëg la yabal si na fi beneen délégation boo xam ne ñëw nañ nemmiku ci bis bi gouverneur jiite ko ba démb si guddi yabal si waat na fi beneen délégation officielle boo xam ne bii danoo ñëw siyaare si sëriñ bi indil ko ay ndokkeel ak ziar ak ñaani président de la république mu jottali ko sëriñ bi sëriñ bi nangul ko ko sant si bu baax xolam sedd si bu baax ñi nga xam ne ñooy ñooy ñooy force de l'ordre yi di police nga xam ne commissaire euh, zone nord dafa am taxawaay bu mat sëkk bu mu si am boo xam ni dafa mel ne daana wuute ak taxawaay yam daa am ndax yebal na fi mbooleem mbooloo moo xamante ni bii ñu ngi nii teew si kanamu sëriñ bi ànd ak ñoom taxawu kër gi ak li wër kër gi ak li wër pénc mi ba benn jiyee amu fi kon sëriñ bi mu ngi leen di sant di leen gërëm li si topp mooy mbooloo mi nga xam ne danoo am danoo amoon ndigalu topp maam Cheikh Ibrahima Fall te yàlla dogal bii nga xam ne bii sëriñ Amdi Fall mii toog na jataayub Cheikh Ibra Fall ñoom ñëpp ñu ñëw tënku si ginnaaw sëriñ am di mooy ñi ñuy tudde seex si seex yi nga ñi nga xam ne danoo àndoon ak maam Cheikh Ibrahima Fall di liggéey kenn ku si nekk ñëw na fi sëriñ bi yeesal pas-pasam am kenn ku nekk ñëw nga indi sa addiya indi sa liggéey indi sa jëf ba sëriñ bi wooteet ñoom ñëpp maase nañ ñëw ànd ak sëriñ bi bis bi yendoo ak moom fanaan ak moom kenn ku ne la nga daa def ba fi sëriñ Cheikh Fall jëmm nekkee nga yokk ko bu baax a baax si kanamu sëriñ bi ba sëriñ bi am si mbégte moo xamante ne mii mbégte mu ràññiku la kon sëriñ bi mu ngi leen di sant yéen ñëpp nag di leen gërëm te di leen ñaanal saa borom dooleel leen na leen saa borom bàyyi leen fi ngeen ànd ak moom liggéey bi lu yàgg yàgg yàgg yàgg te lépp lu nu si yaakaar lu nu si naal lépp suñu borom sottil ko sëriñ bi di sàkku si njaboot yëpp nag ni ñu ko waxee woon rek nu xam ne nun daal génn bëgg la nu am muy muy ngërëm rek te ngërëm li nu koy may mooy mooy ñaqal sëriñ bi jëfal sëriñ bi rek yoonu kër Cheikh Fall moom loolu rek la laaj kon nag sëriñ baa ngi sant ñëpp mi ngi gërëm ñëpp di wax ne daal fa yoon wi tege woon foofee rek la ko tegaat amul lenn luñ si soppi waaw Serigne Fallou loolu mu wax Serigne Moussa lii mu wax si turu Serigne fallu wax ko si jëwriñam ji Serigne Cheikh Ndiaye Mbeng Serigne bi nangul na ko lépp loolu Serigne bi xam na ko bu baax moom xam na Serigne bi kon ñu ngi sant bu baax te lu si des nag si nun la waaye Serigne bi moom sant na ñëpp gërëm na ñëpp wax na ne bu nu bàyyi koo fii kenn ku ne mën ngaa dellu si yitte dégluwaat ndigal ndigal lu tabbiwaat rek sëriñ bi dana ko jottali su ko defee taalib yëpp yëgandoo ko ñu jëfe ko incha allahu kon asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. laa ilaaha illallah